assalaamu aleykum wa rahmatullah assalaamu aleykum wa rahmatullah vendredi 23 août 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb la ak journal bi nga xam ne moo di record yëglikaay bi di sunu làmb nag tey fi mu xëy ñëw wala ki mu xëy tey seqal waxtaan mooy Lac de Guiers numéro 2 day dafa xëy tey nag ñëw jàmbu wala boog daal di taxaw ci yëglikaay ba wax fa ay soxlaam ak ki dëggam ak la mu bëgg ñu ne ko sa bëgg-bëgg bu njëkk wala sa adversaire bu njëkk Lac joxoñul kenn ku dul Modou na Modou mi nga xam ne moo yor li ñëpp bëgg te sama digganteeg moom ba tey daa jàpp ne moom Lac des naa leer nee na man daal mooy sama cible numéro un mooy ki nga xam ne day mooy sama joxoñ ca moom dong la jëm ñu ne ko lu tax mu ne parce ñun ñaar dañoo war a bëri te man yàlla def na bëreeguma ak ku yor roi des arènes moo tax daal ñu ne Modou Lo fi mu nekk nii sama digganteeg moom moom jàpp na ne mun la ñàkk faw daal ñu bëre ñu ne Lo la wax ci moom mu ne Gris day ñaareelu laa teg sama combat ak moom moom néew ma mënta ñàkk de waaye bu ñu am itam daal day fekk Modou Lo bañ a bëre bañ a nangu su Modou nangoo moom Gris day xaar su muuru nanguwul mën naa jël giri muy combat jànq ndax olof a koy wax bu mbul bañee moom lambaay day nangu loolu mooy wax Lac de Guiers 2 ñu ne ko yàgg tafaatin mu ne ci samay plan wala adversaire yi ma ciblé ngir bëre ak moom ñu ne ko lu tax mu ne waaw parce nag fi mu nekk nii moom Modou Lo mu ngi fi Gris Bordeaux ngi fi waaye ki nga xam ne moo moom jàpp na ne daal bokkugul ci ñi mu ciblé ñu ne ko loolu mu ne nag li leer ba leer waxuma ne du ma bëre ak moom de waaye daal ko moom loolu mooy ay waxam ñu ne ko ndax dañoo dox sa combat ak Modou Bordeaux mu ne am na ñu ko doon wax wax ju mel ni ki noonu keneen koo xam ne tamit wax nañ ko si sa digganteeg moom muy ki nga xam ne moo di Eumeu Sène mi nga xam ne ne nañ da ngeen a niil mu daan la benn yoon laaj am na waaye leer ba leer day moom Eumeu Sène moom bor la ma yoral te bor bi nag moom jàpp na ne muy gudd wala muy naaj bis dina ñëw mu fay ma ko ci nii wala ci nele ñu ne ko day li leer ba leer daa mel sa combat ak moom day faral di dëgër ndax li ko waral mooy da ngeen a bokk fu ngeen di ngem wala ngeen bokk ku leen di ngem muy Lamine Bodian laaj ne kuy Lamine Bodian xam kan mooy Lamine Bodian ñu ne ko déet waay pourtant 12 TV toog nga fa de sa combat ak Boy Niang di nuyu Lamine Bodian mu ne leen ñaata Lamine Bodian ñoo am ci réew mi moom daal loolu mooy ay waxam moom moo di Lac de da li nga xam ne moo di ay waxam Lac de Guiers numéro 2 daal xëy kon fàngaañoo sunu làmb waaye jàppal ñoom VIP yooyu day ginnaaw bu Youssou Ndour waxee da xëy na tey di leen dànkaafu sunu làmb xëy tey duñu ko wax jàpp na ne kase 100 millions day daa jàpp ne mënatu la am fi fi fi nga xam ne ni ni mooy ci làmb ji loolu mooy waxi Bécaye Mbaye wala boo deen bu ko promoteur defee moom jàppal li leer ba leer day la leen cay fekk mën naa metti loolu mooy ay waxam waaye leneen loo xam ne tamit wala keneen koo xam ne xëy na tey ñëw ci yëglikaay bi di fa wax muy Moussa Gningue ginnaaw Modou Lo odoom bi mu lakkee bi muy ay fan desee ci combat mag Eumeu Sène Modou Lo toog ñu laaj ko mu ne loolu day yàqalu koon ko dara ci ab ab liggéeyam wala ci préparation Moussa ñun moom daa jàpp ne mbir moomu loo di wax day loo ci mënti dégg wàllu mystique la jóge ci ñi nga xam ne moo di ay adversaire am loolu mooy waxi Moussa Gningue ci yëglikaay bi nga xam ne nii mooy tey sunu làmb keneen koo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii moom moo di ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb muy Modou Anta bu Thiès sunu làmb ne na day moom ginnaaw bi mu fa daanee bàyyi ma ñoon ca Thiès jóppal ba mu ci jógee daal li mu ci teg neexul ndax nag année la Modou Anta def keneen koo xam ne moom guddi ya mu nekkoon metti woon na trop mu koy dund mu moom tonnerre bu Pikine mel ni ki nag yëglikaay bi ne fi mu nekk nii day mu ngay nag génn ndànk-ndànk ca jafe-jafeem yooyu nga xam ne nekkoon na ci ci ndax ren jii day gagné na ab combat te ka mu gagné du kenn ku dul Tidiane Faye ba nga xam ne moom moo nekk fii nga xam ne nii moom bi nga xam ne da caa ñëw nga xam ne day lamb ji nga na ci boppam ren moo tax sax yëglikaay bi jàpp ne day ni mu ko tëjee sax daa neex ndax nag bi nga xam ne moo nekk fa nga xam ne mooy ca mbuur ñeneen xam ne ni moom seen saison naqari na ba yegg ci lool muy waa écrit ñoo ko war a xëy tey di ñu ko wax nee na boo bëggee dégg dëgg daal 2018 jàpp 2019 muy saison bi mu génne day écurie ndam lu rëy moom amuñu ko ca maanaam ci mbir yu mag yi par rapport ak nag saison yi nga xam ne weesu woon nañ ko ndax yëglikaay bay lim ne na 2008 2009 yëglikaay bi nga xam ne mooy record ne na Forza ak Papa Sow ñoo ca génne écrit ba ci combat yu mag 2009 2010 Forza ba tey ak Papa Sow ñëwaat 2010 2011 Papa Sow ñëwaat ak Laroc ak Lagros génnewaat ci écrit ba 2011 2012 Gris Bordeaux ak Papa Sow ak ki nga xam ne moo di Lagros ñëwaat génn ca li nga xam ne moo di écrit ba 2012 ak 2013 Papa Sow ñëwaat ak Gris 2 ak Lagros 2014 génn waat ci écrit ba ci ay combat mag yoo xam ne am nañ ci ay ndam 2013 2014 Gris 2 ñëw ak Forza ñoom garde kër gi bu baax baax génn ci ba ci combat yu mag 2015 wala ne moo di Gris 2 ak Gris ñoom ku ci nekk ñëw wane sa bopp ak Forza dal di confirmer 2015 2016 muy am saison ba tey Gris 2 ak Forza ñoom it ñoo del siwaat waaye 2016 2017 ba tey Gris nag moom ceeb mooy ñëw nag sofe li nga xam ne moo di kër ga daal dal di leen génn ca la leen naroon a dal muy saison boo xam ne dañ koy bër te duñ ci am ndam ñoom mbër mag yi waaye 2017 2018 Forza moo ñëw moom itam def jot booba mu rafet génne ci écrit ba ci combat yu mag waaye 2018 2019 moom boo bëggee dëgg-dëgg moom combat yu mag bañ ca jotoon a am muy ki nga xam ne nii moo di gën di écrit dañ koo ñàkk moo tax yëglikaay bi jàpp ne day fukkeet a ngi yoo xam ne lii dalul écrit face ek maanaam fukkeet yoo xam ne daal tooguñu ci benn at dugguñu ci benn at boo xam ne amuñu ci ay combat yu mag am ca ndam année bi ñu génn daal wala saison buy tëj ci la leen loolu dalee muy waa écrit face leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax ñu ko muy kii nga xam ne nii day wala ñaar ñoo xam ne day boo bëggee dëgg dëkk ku ci ne ka ngay àndal dala jaral lu ne ka ca jëkk mooy lanjang bi nga xam ne mooy ànd ak Eumeu Sène moo tax yëg li kaay bi tudde ko dey lanjang lom damee de Eumeu Sène maanaam daal mooy loxo Eumeu Sène waaye ka nga xam ne tamit mooy papis bu xarañ te ñëpp xam ko moom tamit diggante mag muut loo moom itam ndey daa mel ni daal mooy gardien ba ba ñu ca dara yëg li bi moo xëy tey ñëw wax ñu ko waaye xamal nañu tamit ndey Aziz Ndiaye moom jóge na Màkka aji ji kon léegi moom ab àllaaji la waaye li leer ba leer ay combat ngi yoo xam ne yëg ba da caa ñëw wax ko ngir sa suuf buuru jëm ndax war naa mën a ne góor a soog bébé saalum ca la bokk fara cobra numéro 2 waaye loo ci mun a dégg tey moom ajjuma la yowmul juma dimis mu sell moo tax ñu ngi balu ñëpp ak tey baal ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm waaye li leer ba leer li mu njaay lakos bi nga solal tey taala kawe na trop trop trop la ma ca xaw a jaax mbokk waa Leewtoo TV ñu leen si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. maa lay fay ndey kumba Fall ah euh, maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ko saaxu ci yow mais di nuyu internautes yi di leen ziar di la ñaanal jàmm di nuyu ñëpp daal tey si ajuma ji leen baalu àq di leen baal. ñëw suñu mbokk internet yi si revue si si jàngatu arène bi euh, suñu lamb ak record suñu lamb nag tey lu mu xëyee muy interview ak Lac de Guiers ñu euh, ko woowee le puncheur du du Waalo moom daal nee na si interview bi cible am numéro 1 mooy euh, Modou Lo à défaut de Modou Lo mu dem jëli Gris Bordeaux mais daal mbirum mbirum Tapha Tine daa bëgg ko kenn wax Babacar waaw loolu la xëy wax tey de muy waxtaan bu yaatu bu mu seex ak yëglikaay bi du suñu lamb ñu ci profité di nuyu waa sunu lamb yëpp rawatina suñu soppe yi ne foofu muy Dembélé le tout puissant ak Boubacar Nia xam nga ñoom Iba Kane xam nga Assane Waalo gay ah ak Mbuub ñoom ñëpp ñu nañ leen ah waa sunu lamb yëpp parce que 100 pour cent lamb tam la ñuy def. du ak du te olof yi ne nañ tax tey mbokkam ndax ñoo bokk bi yàlla euh, Lac de Guiers numéro 2 nag comme loolu mu xëy wax am na si droit. parce que bëri na ak Modou Lo ñaari yoon ñu mat si niil benn mu ñëw Modou gañuwaat ko par avertissement tey Modou yor roi des arènes moom mu jóge ci ndam ci diggante ak Boy Niang Modou jógee ci ndam lu rëy digganteem ak Eumeu Sène am na droit tey ne kat cible numéro un Modou Lo la yaa ngi parce que nag Modou Lo actuellement c'est le roi te li mu yor ku nekk bëgg na ko te combat mag lak itam war na mën a neexaat ngir seen diggante war a gën a mën a leer nee na tamit sudul moom mu dem ci keneen maanaam bu mbul bañee làmbaay day nangu ça veut dire que su kooku ñëwul tamit mën na jëli Gris Bordeaux effectivement moo Gris Bordeaux yàgg nañ ko bëgg ci làmb Lac de Guiers 2 Gris Bordeaux yàggis na ko bëgg loolu tamit lu war a mën a nekk la parce que li ma dul d'accord daal mooy ciblé kenn rek ne su dul moom du ma bëre parce que tamit Modou Lo tey kenn du ko forcer ne ko dinaa bëreek yow force parce que moom mooy roi moom kay day bëgg rek mu yomb waaye su bëggul du yomb ci yow kon su mënta am Modou bu amee giri baax na tafaatin moom d'accordu ci parce que jàpp na ne actuellement bokkul ci ñi mu ñi mu teg ne war na bëre ak ñoom nee na nag waxul ne du bëre ak moom mais bokkul ci cible am loolu tamit mën nañ ko ko nangul xay na daanoon na ko xëy na daa gis ne am na leneen lu loo xam ne xëy na moo ko gënal te ku nekk nag olof a wax pataa sama gënal ñam bi nday kumba fal kuñ ci tëj ka lay layal a baaxul yaa ngi dégg Eumeu Sène itam ñëw na ci moom jàpp na ne moom bor la ko yoral te ah, ak ak lu mën a xew dina ñëw bés dina ñëw mu fay ko ko kon daal jàpp naa ne ñoom moom fi mu nekk nii moom bëri na ay adversaire moom Lac de Guiers numéro 2 parce que ñooñu ñëpp muy moom Modou Lo bi mu njëkk a wax Gris Bordeaux Eumeu Sène ba ci Tapha ku ci ne adversaire am nga moom nag moo ak staff am ñooy xool fu ñuy taxaw ak nu ñuy doxal ak ku ñuy jël ak ku leen lamb di booleel waaw si mbiru Modou boobu sax nee na Modou dafa mbuus Modou Lo mi ngi koy lim naan bëgg lu bëreeg moom bëgg lu bëreeg diw nee loolu yëpp day pré xëy na da di préparé ndax nee na mënul si génnee si prochain adversaire bi kii di moom wala Ama Balde wala wala Balla Gaye nee na Modou Lo dafay clignoter à gauche ba tourner à droite mais xam na ni su bëreewul ak ñett ñi làmbam du dem fenn. waaw loolu de Modou day mbër la comme mbër yi pour man te itam làmb comme liñ lay wax rek euh, euh, père Max Mbargane mu koy nuyuwaat di ko siyaar ci moom laay faral di déggee baat boobu buñ la séentoo fet nga fetal ñu séentu la fetal nga fet kon Modou xëy na am na droit doxale noonu parce que tamit moom euh, ay adversaire foofu mënu fa génn mais nag am na droit xëy na ci ni may déggee est-ce que day wax ne du ma bëre ak ñoom wala boog dafa wax ni jëlagul combat est-ce que du loolu laay dégg comme que du ma bëre ak ñoom parce que ñooñu pour man ñoo fay adver adversaire yu Modou mënta génn Lac de Guiers 2 mënta génn Gris Bordeaux mënta génn Bombardier Balla Gaye Tapha Tine Ama Baldé ak ñooñu foofu la ay adversaire am nekk yaa ngi dégg kon yaakaar naa ak lu mën a xew rek làmb nag naxante da cee am waaw na làmb moom mbirum naxante la te olof yi tamit daa am lu ñuy lépp ku ñu xam fa nga jëm nday Kumba Fall ah mu ne mu ma doo yegg de waaye sag yegg mën naa metti looba la boo boo yeggee itam coono bu metti dana la dal xëy na muudu itam nag parce li ko may mu yegg si ba fii xel la ak xalaat ak di déggoog ñi mu war a waxal moo tax tey mu ñàkkante ba dégg tey roi des arènes loolu nag bëgg koo foye si si mbirum VIP yooyu sax la des ndax Bécaye Mbaye nee mbër yi suñu continuer promoteurs yi suñu continuer di fay euh, mbër yi plus de 100 millions cachet nee nañu soo moytul seen seen seen ay bañ dina si des donc nee loolu daal dañ ko war a changer mbër yi nu promoteurs yi wàññi cachet mbër yi comme ça VIP ñëpp di mën di bëri. waaw loolu père Bekaay wax ñu koy nuyu di ko siyaar moom tam suñu papa di suñu royukaay ci li ñuy liggéey parce que euh, mën naa ne tamit ci mag ñu baax ñi la bokk suñu papa Bekaay Mbaye ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ah, loolu wax tamit euh, xëy na ku nekk daal sa gis-gis ngay waxee. parce que li tax mooy combat yi bu ci nekk ak pireem bu ci nekk ak njëgam mbër mu nekk it ak am mu mbër mu nekk ak la muy jar xëy na nag comme kase 100 millions yi moom mu ne buñ ko daan amee ba tey kenn sonatul mais li leer ba leer daal mbër yi moom ku ci ne am na pireem promoteur itam ku ci ne am na combat boo xam ne war nga ko mën a tëgg ku ne xam la ngay def daal ak la nga war a def nga def ko ngir boo ko defee boo tëddee noppalu kenn du ci gaañu mbër ba du gaañu promoteur ba du gaañu amateur yi duñ gaañu loolu daal ñun moom la ñuy souhaité ku ci nekk rek si amateur googu sax la des ndax seen président du jànjekk moom ñaawlu na trop cachet yi nga xam ni mbër yi ñoom lay laaj donc ñoom daal nee na na mbër yi xoolaat seen taxawaay pour mën a combat yi di gën a mën a bëri ndax amateur aussi loolu la ñu soxla waaw amateur yi loolu la ñu soxla ñu koy nuyu di ko ziar c'est le président des amateurs du jànjekko di ko ziar bu baax a baax moom itam waaw loolu itam mooy li ñu wax sànq rek xam nga cachet moom daa nekk loo xam ne nii tey ci làmb mbirum privé pour man wala ni ñu koy waxtaane parce que li koy ñi muy intéressé mooy mbër mi manaat ak ki nga xam ne mooy parrain comme li xew léegi si làmb ñoo koy waxtaan muy waxtaan woo ne waxtaanu biir néeg la des fois bu ñu koy def sax du ñu bëgg dara senn ci dañ koy wax ba tënk ko door ko génne comme ñooñu nag di ko séq di ko waxtaane nag pour man kuy jóg dem di waxaale ji dara ñàkkul yor nga njëgg wala soo demee itam la nga ca prix ba nga fay bu méngoowul ak la nga bëgg a jënd itam bàyyi rek ngay mën a def man daal li ma li ma dul daa man daal nday kumba leen daal laa mag daal lu mu nangu bu ñu ko tegee dagan waaye ku nekk nag dama ne langa man xam nga ko la nga mënul xam nga ko mbër yi tamit ci benn côté mënuma leen a blâmer parce que li tax mooy ñoom ay mbër lañu dañuy compétir ku ci ne si ñoom xam nga la ngay jar xam nga am na loo ne soo ko laajee nit su ko mënul du la ko jox loolu rek moo fi nekk. Babacar nu jógee suñu lamb dem si record record moom dafa def benn jàngat si écurie Fass nee ñu depuis 2008 ba mille 2018 écurie bi musul saison musul jot. te du ñu am victoire yu mag maanaam ténor yi ñoom Gris 2 ñoom Gris Bordeaux ñoom Papa Sow ñoom Lac Rose ñoom ñëpp seen mbër yi mag yi amul yëpp ay victoire la ñu am amuñu si ay defet mais daal ren dañu gis daal mbër yi mbër yi mag yi amuñu amuñu victoire. waaw loolu maanaam yëglekaay ba fa nekk di ko ziar bu baax a baax mooy que ni la ko commencé saison 2008 2009 ba 2018 2019 saison bu ci écrit face rek. mbër yu mag ya am nañ ci ay ndam moo xam nu muy demee waaye am nañ ko ca mais saison 2018 2019 bii jeex nag loolu lañ fa gisul moo tax yëglekaay bi def boobu jàngat loolu tamit taxaw seetlu la lu jara taxaw seetlu la parce que ren boo xoolee seen mbër yu mag yi mën nga ne que bëriwul saison bëriwuñ saison bii génn benn Gris 2 moo ci bëri pour yaakaar na am ci défaite yaa ngi dégg am na espoir yoo xam ne nag bëri nañ grand combat xale bu mel ni Boga bëri na grand combat daan xale bu mel ni Pape bu xees bëri na grand combat mais dañ ko daan mais bu ñuy wax xëy li tax mu wax loolu mooy ñoom Gris Bordeaux ñoom Papa Sow ñoom Forza Lagros Gris 2 ak ñu mel ni ki ñooñu ñooñu vraiment ren gisuñu leen ay ñoom Baara Ndiaye général gisuñu ci mbër yooyu kenn mu bëree benn girida lañ laal la wax léegi moom ci bëree yi ñàkk ah loolu nag liñ ci mën a xal wax mooy que ne ñoom seen écrit écrit bu mag la comme ni ñu koy waxee te loolu defe naa mooy li am écrit la boo xam ne yaakaar naa ci li ñu mën a jàpp mooy écrit bi ñu njëkk a sanc administrativement yaakaar naa ne kon defe naa loolu nag ay at la ak léegi yàgg na ay mbër bëri nañ fa ba bàyyi bëri ay mbër maanaam lu ne am na ci diggante bi kon defe naa am nañ encadrement am nañ staff loolu kon ñoom waaye kii Fass ñoom ñoo war a toogaat xoolaat seen bopp lu tax seeni i mbër bëriwul lu tax ñu ñàkk yenn combat yi loolu nag jàngat la boo xam ne nii bu ko defee seen biir xëy na mën nañ caa trouver solution loo ci mën a dégg daal euh, nañu maanaam li li li li li war a am daal li war a jiitu daal suñ ko bàyyee ginnaaw. jiital li war a jiitu rek des fois ay jafe-jafe mën na am kon nag ñun amuñu lu ñu leen di jàngal waaye li ñu leen mën a wax mooy suñu xalaat di ko wax ñëpp itam mooy kuréel gu mu doon wala mbooloo mu mën a doon la ca war di jiitu mooy toog waxtaan li baaxul ñu ñeme dëgg sempi ko sànni li baax ñu fexe koo sàmm pour avancement mën a am. Babacar loolu am na solo Babacar nag lamb ji am nañu ay alaaji yu bees ki si mel ni Paala Diop jóge na màkk ki si mel ni aussi Aziz Ndiaye aussi nee nañu léegi nañ koy tuddee alaaji Aziz Ndiaye Babacar. waaw Paala Diop ñu koy nuyu di ko ziar di saako ci moom ñaan parce que hélas la ah di ci profité di nuyu sama benn xarit boo xam ne ci 100 pour 100 Babacar la bokk fan si bi muy grand laay moom it tamit dëkk Kaolack. ñuy dëkk fii ci géejawaay yaayam demoon aji ji màkka ñu doon ko nganal dem ca géejawaay ñu koy ñaanal yaayam jooju yàlla na yàlla def kaala gi ràpp ak jàmm hélas yi ci làmb ji tamit am na solo hélas Pala Diop hélas Aziz Ndiaye al amin kon léegi dañ cay yokk hélas bi ah ñu koy nuyu di ko ziar moom tamit di saako ci moom ñaan Aziz Ndiaye xam nga di nuyu ñëpp loolu di loo xam ne tamit fierté la ah. parce que defe naa ne jullit bu nekk rek bés dina jot ngay ñaan yàlla dem siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa ñun ñu demagul yàlla nañ ko buur yàlla defal ñi fa dem tamit yàlla na nekk seen njiglaay te nekk xéewal wàcc ci réew mi Uh-huh. Amin Babacar si kàddu yàlla leen di tàgg di nuyu aussi uh, uh, yaayu Nene uh, Eva Diallo yaayu Rokhaya di nuy aussi Khadija Diallo chéri Astandine depuis Italie di nuy aussi Dadi Gueye maa nuy koy nuyu aussi Talla Talla nuyu naa la lu bëri. <laughs> waaw di nuyu aussi Aïcha Faye. Aïcha Amet Niang. ok noonu la demee di nuyu ñëpp ah di ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm. ñëpp rek di wax ne que rek yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi defal ko ñi ko dëkkee def ko si àddina bi tamit muy di nuyu koo xam ne tey xam naa su ma ko nuyuloon dama kereel problème benn jaamu séréer la di benn joolaa ñu koy wax Rama Jeeju nekk caissier fële ca euh, station sel bi nekk euh, Lamine Gueye ma koy nuyu bu baax a baax dëkk parcelle unité 19 Dior rama maa ngi lay nuyu mais di tëmi nuyu samay nit yoo xam ne ñoo bokk groupe baax di sama ay xarit sama ay rakk ku mel ne Elimane bu tafaati ñu tuddee woon ko làmb quatrième jour après tabaski bi fële nga xam ne mooy mbal mi drapeau ma ko ci nuyu di ko ziar di ñaan yàlla drapeau yi mook laat Abdoulahat Sène bu armée nekk marché ti leen di jaaykatu or moom tamit ñu tuddee woon ko fa làmb ñoom ñëpp ñuy bég ci loolu di ci nuyu waa groupe baax yëpp di junañoo bi di ko teg ci loxo président bi Massamba Dieye mais di yëpp Mame Thierno Ndiaye ma ko fàtte depuis Ndondol di sama mbokk ñu bokk dëkk Bawal xam nga di ko nuy di nuyu waa Ndondol yëpp rawatina la maire sama mag sama xarit maître Pape Sène maa ngi koy nuyu di ko ziar di ñoom Cheikh Ndaw ñoom Ablaye Thiaw waa ndondol yëpp waa mbomboy tamit du ma leen fàtte sama dëkku yaay rawatina mbomboy reefan kër ngoon Sarr kër Waly ak yaay gi nga xam ne fa laa juddoo maa ngi leen nuyu di leen jaar ndey ku ma di bolo ñëpp. nuyu Ayda Diouf Ayda Diouf non kenn da koy fàtte borom ñetti baaba kër yi Ayda Babacar la papaam tudd Ayda sëñ Babacar si mooy papaam Ayda man Babacar mi toog maay séeréer mooy borom ñetti Babacar yi Ayda borom ndox mi borom màdd ji neex deret lool macha allah borom sànni si moom lu ne lay joxe xam nga moom danaa ko yow moom yàllaa lay fay. Taala Njaay nag tey ba si bu. Xadi Taala tey lakos bu Rose la ko lépp jox.